bees de li ñuy xibaar ci waa RFM nañu dafa am soxna soo xam ne daal mu ngi woyoo ci turu NS euh, dañu ko teg loxo parce que moom dafa doon jaar foofu dugg ci centre yi ne ab journaliste la bi ñu ko tegee loxo nag li ñu gis mooy dafa am kenn ci candidat yi koo xam ne journaliste la am na su am na ko ma ko wax euh, ci noonu la ñu ko daal di interpellé ñu xibaar ne mu nga ca gendarmerie bu Wakaam ñu teg ko loxo candidat bi aussi jot nañ ko daal di convoqué loolu moom xam naa musiba naaru laay la. kenn ci candidat yi kenn ci la. waaw non moom euh, euh, moom journaliste la. waaw moom candidat bi. mais dafa am soxna su defaral foo carte de presse. Euh, pour muy mën a dugg ci centre yi di joxe yenn information et tout. Ah ci xibaar nag mooy son ndaw soosee teg nañu ko loxo. Mhm. ba actuellement mu nga ca commissariat wala sax ca gendarmerie bu Wakaam. nee nañu nag candidat yi moom ci boppam convoqué nañ ko parce que dafa am site. voilà donc pour dire que. dafa am site internet. Hmm. Eh, waaw am na ko xel dal nag waaye comme que <laughs> ah, oh, oh, moom seen i la de <laughs> kooku moom kooku moom seen i la ñoo ñoo fi candidat journaliste. yaakaar naa ñetti ngeen ci am de. man ko nañu euh, ko bàyyi noonu jëwriñ. non non man kay dinaa ko lim moom ah. <laughs> ko euh, noonu ma ja ma jàmbal Yirim Yirim Seck wala Pape Djibril Fall ñetti ñooñu je pense ñoo fi compétir de. Euh, mu ngi noonu am naa yeneen ci ay. jërëjëf daal tooñ. <laughs> dana ci gën a xam dara incha allahu rabi eh, leneen ci ay euh, voilà yeneen ci ay résultats yoo xam ne euh, fekk cinéma tout à l'heure euh, mën nga ma ko officiel bu fekkee ne mm. Cheikh Anta ah, mën nga ma officiel yooyu les résultats bokk na ci Dakar Kër Massar Malika mm-hmm. Kër Massar Nord PA unité 11 bureau de vote numéro 3 Euh, fiche de proclamation des résultats nombre euh, d'électeurs inscrits 440 euh, nombre de votants 186 au total 186 ñoom ñoo jot euh, voté foofee euh, li nga xam ne moo di parti euh, PASTEF ñoom am nañu lu toll ci cent 118 voix coalition Jàmm ak Njariñ bu Amadou Ba 19 coalition takk Wàllu vingt 24 voilà mu mel ni que ñoom aussi def nañ foofu euh, percée bu am solo ci beneen bi nga xam ne yor nañ ko muy Dakar Kër Massar Malika euh, Parcelles Assainies unité 11 voilà 400 445 euh, ci ay électeurs ñoo jot a inscrire foofee mais 210 ñoo ñoo jot a voté nombre de votants or bureau originel 4 nombre de bulletin nuls 0 nombre de suffrages valablement valablement cent 210 et euh, sur ce li ñu mën a xam ci loolu mooy Pastef am na cent euh, trente cinq voix euh, coalition jàmm ak njëriñ vingt six voix bés du ñàkk trois Euh, coalition takk wàllu vingt euh, voix voilà donc je pense que mooy information yi nga xam ne jëlee nañ ko foofee euh, ca diwaanu li nga xam ne moo di Parcelles Assainies wala ca diwaanu Kër Massar ci ay chantre de vote yoo xam ne jot nañu dal di jox li ni mel donc information mën a wax également je pense que c'est confirmé mooy Amadou Ba perd son bureau de vote centre HLM Grand Médine centre de Amadou Ba bureau 9 Pastef 173 Sàmm Sa Kàddu 60 Euh, naatal àll bi huit euh, takk wàllu cinq le reste moom ay zéro la ñu am voilà donc je pense que Amadou Ba nag. <laughs> Euh, sa vie politique est en quand même de se de se décider ah je pense oui oui non c' décisif pour lui ah. oui c' décisif sur lui parce que instant si ñu nii ci lay mën a xam vraiment est ce est bon xam li muy posé ci population bi quoi. justement oui. xam li muy posé ci population bi xam li muy posé ci population bi quoi. donc ci lay jël forme quoi. <laughs> on verra. Ouais. on verra on verra Amadou Ba. Mm-hmm. fan mu euh, mujjee fii yëmbal sud la école di Ndiaye bureau numéro 13 euh, Pastef 152 takk wàllu 41 jàmm ak njëriñ 24 euh, sàmm sa kaddu 13 voilà donc bokk na ci yëmbal yëmbal sud yëmbal yëmbal sax kan moo fa ne ci membre Pastef yi Euh, yëmbal je pense que xaw ma kan moo fa nekk parce que Khadija Mahécor moom mu ngi euh, fële. Hmm. mu nga ca euh, diwaanu golf voilà donc foofu la foofu la nekk. est-ce la mu nekk yëmbal. Waly Diouf Bodian Waly Diouf Bodian je pense. je sais pas beaucoup trop mais en tout hmm. cas. mu ngi hmm. mu ngi mu ngi noonu. jërëjëf résultat yaa ngi a wàcc dafa mel de plus en plus mi ngi jiitu ah mi ngi jiitu. mi ngi jiitu la logique la. parce que tamit nu mu tuddati. bu ñu joxul Pastef majorité on sera incohérent quand même on sera incohérent parce que souvent day mel liggéey bi ñu def ci présidentielle bi yëpp amul sens quoi parce que dama ki doo ko jiital ba pare jox ko exécutif bi te joxoo ko parlement bi ko joxoo ko parlement bi parce que ce qu'on veut mooy parlement bu bu bu équilibré boo xamante ni représente le Sénégal quoi loolu lañ soxla ko euh, loolu moom mooy yoon surtout à sept mois euh, ci euh, ci gouvernance c'est normal quand même ñu jox leen assemblée pour voir nag ñoom Euh, fan la ñu yóbbu gars yi. oui oui sinon loo leen mën a justifier quand même sinon loo leen mën a justifier parce que bu fekkee ni joxoo leen parlement bi euh, naka nga leen di juger <laughs> hmm? xanaa na doomu ne leen di fal rek parce que dañoo rafet parce que dañoo jantal quoi <laughs> da leen di liggéeyloo nit ki boo ko liggéeyloowee da nga koy jox jumtukaay yu mu war a liggéeyee quand même <laughs> non loolu mooy réalité bi quoi. ok bi euh, école publique Sicap Mbao bureau 10 Pastef 185 Euh, jàmm ak njëriñ 26 de Amadou Ba sàmm sa kàddu 16 euh, takku wàllu 43 mais est-ce que si sa continue sa euh, est-ce ça continue comme ça jëwriñ est-ce que peut-être <laughs> les autres coalitions dinañ am peut-être groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée. bu ñu leen boolee ñoom ñoom ndax dinañ am benn groupe parlementaire. Ah, waaw <laughs> si ça continue comme ça moom soo moytuwul ça va être compliqué mais tamit te leen il faut que ñu yar leen politiciens il faut que ñu yar leen. quoi mmh. il faut que ñu yar leen. il faut que ñu yar leen quoi donc. Euh, foog population bi dañ décisif ko hmm. peuple bi dañ décisif quoi. waaye peuple bi dañ décisif quoi waaye peuple bi dañ décisif. ok kon daal gars yi. Euh, hmm. dañu dañu dañu taxaw pour leneen ak leneen quoi. peut-être euh, changement rupture et cetera et tout. Sénégal dafay changer beneen buubu day sol beneen buubu. Hmm. Sénégal day sol beneen buubu waaw. ok honorable Ngombé ñu jëli koo xam ne moom doonoon na sax ab. député euh, honorable maa ngi lay maa ngi lay nuyu honorable waaw yaa ngi ci yaa ngi ci résultat yi de mais ma tuuti rek honorable voilà xam na du du voilà je pense bon Euh, voilà kon problème bi yëpp man la woon ndeke <laughs> ñu dem euh, jëli euh, soxna Fatou Ba walla je pense cette fois ci c'est bon honorable maa ngi leen di nuyu. waaw yaa ngi yaa ngi yaa ngi direct actuellement naka résultat yi foofu. ah te am yaakaar bu rëy allah. ok waaw mais par contre kon daal yéen a ngi bàccal bàccal daal ñafal ñafal. waaw waaw. <laughs> ok euh, est-ce que justement boo boo xoolee peut-être euh, résultats yi nga xam ne ñu ngi commencé di rot ndànk-ndànk même si que loolu xaw na peut-être tuuti pour ñu évaluer un déjà est-ce que day wane que tey euh, da ngeen bëgg a def razzia justement ci par rapport à ces élections. razzia total la ñuy def mhm. total parce dañoo imposer benn vision waa nar a développé Sénégal na ñëpp adhéré si mhm. loolu moo nekk di résultat boobu moo nekk di génn nii te am si mbégte bu baax a baax nag mhm. daay wane ko seen seen sëy ak askan wi ba léegi askan waa ngi woy di leen di joxe gën de ah <laughs> waaw askan baa ñuy jox gën waaw parce que dañ ñutlu ah. waaw am am loo xamante leen ko jaay te loolu mooy lu concret Mhm. tel mooy lu dëgg si ñun tel mooy suñu jub juba bi ak suñu vision Sénégal deux mille cinquante bi waaw loolu nag loo xamante lu ñuy concrétiser la au de l' assemblée nationale te loolu moom moom incha allah rabi sénégalais yëpp adhéré nañ si. ok tey si suba ñu doon wax sa wàllum taux de participation mais il paraît que affaire bi gën na xaw na yëkkati ko tuuti par rapport ak dernière législative yi. waaw waaw gën na yëkkatiku parce que si suba si moom xawoon